يالتي سن صالح موي خليفة جروميل بي gannaaw sëñ Abdou Qadir moo ci topp feeñ ci àdduna mille trois cent trente trois ci gàddaay mille neuf cent quinze ci atum tubaab génn àdduna mille quatre cent vingt huit ci gàddaay deux mille sept ci atum tubaab ñu xamoon ko ci rafetu xam ak rafetu jëfe di xay jub yàlla borom am cër ci yàlla boromam di ko wan gannaaw lépp lu dul yàlla jeex tàkk ci yàlla ragal yàlla lool xër ci dimbal jullit ñi lool amuk ñëweti yërmande ci ñoom lool yàlla féetale ko nag mbirum ñu wax tarbiya defar rek doomi aadama yi rawatina tuut tànk yi ak waxambaane ba ci mag ñi sos na ay dëkk dëkk yoo xam ne dara taxul lu may jàng ak jàngale ak yare ci yoonu tërbiya yi nga xam ne moom la Sëñ Tuubaa doon santaane bari na ñu jaar ci ay loxoom ba génn doon rek borom xam-xam yu baax yu defaru tey defare moom nag doom yu góor yi borom Tuubaa yi moo ci mujjoon tidak mono salim sama ibu aduna wajah leci salim salih moy khalif abdurrah meldi dana usin abdul qadir moja top aduna mitruwa sa terantu terwa cikadai Kes, jatuh génn àdduna 1428 ci gàddaay 2007